ñëw dugg ci sama studio ah, xaaroo ñu ni la enterré nga foncé dugg ci biir qu'est-ce que c'est que mu doon nii. si koñ yi di way ci koñ yeeg xam nga fu ma invité ma way léegi nag ma commencé jëm bay dégg dangaa am talent dangaa am talent surtout suñu waa koñ dangaa am talent rek laa dégg pourquoi pas mun ko. bien sûr bien sûr. Ah. yow soo ne soo bi gëm nga LDR jël ko soo bi may way ni gëm nga loolu lañuy prise parce que moom mooy moom mooy chapitre sept le devenir une con Ah, international la woy laay def. Hmm. dàq naa ñu bari ñu ngi bay gis mais dañoo soxor. benn morceau bu ma benn son. Hmm. son bu am solo. son bi woy naa ko Italie mu am ay moor. bëgg naa. doo doo ko fi wooyee doo ko fi wooyee doo ko fi wooyee parce que ñun pare wuñu pour dee te bés du ñëw ñu dee ah. ñu armé chapitre huit bi moo ci des. ah huit. ak neuf bi. léegi moom lañu non ro xool man dama am xam-xam ah. waaw waaw da ngay déglu sama xam-xam. pour moom mën a exercer sa talent quoi. waaw soo mënul déglu sama xam-xam sa talent mënut a feeñ. léegi bu ñu jëlee chapitre huit ak neuf bi. waaw dinañu composé un bi pour mën ko dool. ok. <laughs> ok lii ngay jël tap ko dana bul daw pare pare naa léegi taxawal nga jàkkaarloo dee ma déglu nag bu ma ne en am na balance am na lu bëri man maa lay jox lii nga jox ma ko xaaral rek tey ñu toj wi kii taxa moo boo ko jëm kii wax te xamoo li oh, nga yor oh. bëggoon naa la jàppale trop mais gis na ni amoo talent amoo talent amoo talent amoo talent amoo talent yow kay Moussa Fall yaa xamul kat bul mer bul mer coronavirus coronavirus coronavirus coronavirus sama galo DG Fall ma tey moom dajew na